malade la ngeen أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله sant yàlla bu baax ci la ñu fekkee waat at mi war a waxaat ci seen kanam waxtaan ci benn thème bu ngeen ma sant mu di yar ak njàngale xam ngeen ni thème bu la benn ci ñoom rek géej la rawatina ñoom ñaar waaw waaye nag ci ndimbalal yàlla daañ ci jéem wax lañu xam mënuñu wax lépp itam dañuy obligé di gàttal pour mën a wax ci l'essentiel li ci des ay waxtaan la ak ay question boobaa ñoo tontu ci lañu ñu xam lu ci des alhamdulilah ay eh, eh, eh, wala maa rek ñoo ma wër boobaa daañu gàgganti ndax ku xamul dara nga sant kon di ko kaay wax ci diine ci mbiru yar muy góorgóorlu kooku dafa laaj ñu dimbale ko <laughs> yaakaar naa daañu ma dimbale bu baax a baax alhamdulilah islam dafa digle ñu yar lépp ci doomu aadama bi bi maanaam jëmm ji xelam xalaatam xolam ak ay bëgg-bëggam ñu fexe ba ñu xamal xal xale bi teel ni ko ñaari dund moo am dund gii ci àdduna te day jeex ak dund gale dès le ci njëlbeen rekk xale bu ràññee rek loolu lay war a jëkk xam dund gi yemul ci àdduna bi ma mataawu dunya xalilun bànneexu àdduna lu tuuti la walaaxiratu xayrun wa abqa alaaxira moo gën te moo gën a yàgg ndax àdduna du dara te nag xaalidiina fiha abadan <laughs> da nga fay beelu faw da amul liggéey amul dara bu fekkee aljanna la bànneexu rek la waaye ni yàlla yaasu billaay su fekkee safaan ba kooku moom ay coono rek la euh, donc loolu boo ci mooñee xale bi bu demee ba nekk waxambaane dafay sàmmoon teg lu yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ihmal fi dunyaaka ka annaka tayshun abadan wa ihmal fi dunyaaka ka annaka tamuta xaddan na nga jëf ci sa àdduna comme su fekkoonte ni yow dangay ngay dund faw doo dee mu ne ko en même temps na nga jëf ci sa àdduna comme su fekkonte ni bu subaa nga dee xam nga yooyu boo ko boolee am na kon nu na nga war a mel da nga jaamu yàlla bu baax waaye da nga góorgóorlu ci aussi ci àdduna ba keroog yàlla ay ñëw islaam dafa bëgg ñu jox xale bi li nga xam ni moom la diine indi ñaar rek la man yuslim wajhu lillahi benn bàngoog wa huwa muhsinun ñaareel bàngoog wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun <laughs> waaw nan laay def ba jubag sama borom jébbal sama bopp sama borom lu ma sant ma def lu ma tere ma bàyyi te di def lu baax première vérité baa nga noonu deuxième vérité mooy def lu baax yàlla nee na wala xawfun alayhim walla hum yaxzanun bul tiit bul ragal kon yëf yaa ngoog xale nag dépôt la ndénkaane la yàlla moo ko dénk ay waajuram xale dafa set wecc ah, amul benn bàkkaar amul jikko Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau dafa wax ni l'individu n'est bon mais la société le rend mauvais nit ki bu juddoo dafay set wecc mais société bu muy dund di jànkoonteeg faux problème yeeg yu bon yi mooy def ba soppi ko mu nekk bon waaye yàlla lu muy defar du bon xale du du ñëw indaale mbon mais milieu bu mu nekk ñu koy yar ak ni koy yaree loolu mooy tax mu baax wala mu bon donc yar lu am solo la euh, kon nag boo façonné xale bi noonu nga façonné bakkan bi noonu ndax bakkan dañ ko yar inna nafsa la amarata bisu yi bakkan moom lu baax lu bon rek la nan nga yaree sa bakkan ba jóge ci nafsul amarata bisu yi ñëw ci nafsul mutmainna bi yàlla bëgg yaa ayatuha nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wa dxulul jannata yal nañu ko yàlla defal nan la ñuy tàggatee sunu bakkan ba yàlla ni ni leen kaay leen nag irji ila rabbiki radiyatan ngay ngay ngay sant sa borom mardiya sa borom di la sant fadxuli fi ibadi kay dugg sama jaam yu baax yi adxuli jannati kay dugg ci aljanna ji yenn ko yàlla defal waaye liggéey bu liggéey bu doy waar la liggéey bu doy waar la daañu ñëw tout de suite loolu dafay tax bakkan bi day bëgg dëgg te yàlla mooy dëgg allahul xaq lépp li ngeen jaamu min dunihi lu moom waxuwal baatil loolu lu lu réer la bakkan bu ñu façonné noonu nag dootu nangu baatil <laughs> lu ñëw rek daf koy dàq baatil rek eh, réeraange su ñëwee rek daf koy dàq systématiquement <clears throat> alxuraan code la am na dafa am code juridique alors code de conduite code de lii code de là et cetera alxuraan yëpp la dajale code général la bu concerné aussi bien mag ak xale mbindaafoon yépp ci kaw suuf ñoom la yàlla waxal boobu nee na fàttewul dara nu yare sunu doom ah bés bu nekk nu jàng ko ci alxuraan romb ko waaye duñ ci def attention pourtant yàlla wax na ko est-ce que noonu ciy tënku wala déet xam naa daan ci waxtaan ci kanam tuuti <laughs> pour xalaatu islam Euh, góor ak jigéen mag ak ndaw surtout xale ak xale doom doom yàlla nee na richesse la almaalu wal banuunu zinatu ayati dunia seen taaru àdduna balaa ngay am kontaan ci àdduna nga am doom am alal yéen yéen doomu aadama loolu ngeen bëgg waaye wal baqiyatu saalihaatu xayrun inda rabbaka sawaban farata yi julli julli farata yi ak julli naafila yi ñoo gën baax alal ak doom ndax lan yawma yafirul marru min axiihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi ah bés bu nga doom day daw frère di daw baayam di daw yaayam di daw jabaram te ñu nga gën am ñu gën a baax ci àdduna nga leen di daw lu tax ndax amee amee lu ma leen àq ñu ma koy laaj yàlla commencé ci ñi la gën a jógee rawatina nag ñi la gën a sore fekkee ñooñu ngay daw ak nga xam ne àdduna fii ñooñu rek nga bëgg kon yëf yi beneen affaire la beneen affaire la léegi nag xale gàncax la gàncax da nga koy def ci suuf su baax am déet waaw alors règle yu gën a élémentaire ci islam mooy nga comporté wu ni nga bëggee sa bopp nga bëggee ko noonu nit ñi ba euh, tax yàlla ni lan tudxulul jannata yaakaar naa hadis la sax lan tudxulul jannata xata tuminu wala tuminu xata tahabu waaw li nga bëgg du ngeen dégg mukk nii da ngeen dugg aljanna de du ngeen fa dugg su fekkee gëmu leen yàlla waaye ngëm du ngeen ko am mukk su fekkente ni bëggantiwu leen ci seen bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom boobu principe su amee ci kër gi diggante jabar ak jëkkër ci biir kër gi ñu ànd ci mawaddata wa rahma loolu lu muy jur mooy doom ju baax eh? naa ko léegi islam dafa considéré ni doom comme yàlla la ko dénk dépôt la waaw bu bu bu am solo ñoom ñooy premier responsable dépôt mooy famille bi islam dafa considéré ni ci mbiru yar parent yi ñooy ñoom ñooy xale bi wàcc ci ñoom bu ñëwee ci foofu lay juddoo eh, yaay sonn trop ëmb doom ba ëmb bi d'abord day day facile day yomb après ëmb bi day metti après mu diis waaye bu demee bay wasin góor gi ak jigéen jëpp di ñaan yàlla naan ko yàlla nga ñu may sunu doom bi bokk ci saaliina yi <laughs> loolu lañuy ñaan mu ni min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala la baynakum mawaddata wa rahma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun waaw bokk na ci kaw kawteefu yàlla yi mu bind ci maam jóge jël ci yéen ci maam aadama Hawa jabaram li taskunu ile ilayha ndekete rôlu su mariage mooy loolu danga nga takk jabar pour mu noppal la ci kër gi yow yaay wuti dund waaye jabar ji mooy nekk ci kër gi mooy góorgóorlu mooy toppatoo xale yi mooy yar mooy mooy fexe togg yëpp set boo ñëwee ndax nga noppalu ndax boo ko doon boo doon def sa liggéey pare ñëw féetewaat encore ci kër gi day metti kon li tuskunu li taskunu ilayha waaw muy dëgg seen biir nag ma wadda wa rahma ndeketi sëy lu ko amee rek mooy ñaar ñooñu mbëggeel ak baax yërma yërëm sa di ngeen yërëmante bëggante sëy bi dana dëgër yàllaa ko waxal boppam ma wadda wa rahma <clears throat> sentiment yooyu diggante jëkkër ji ak jabar ji c'est fondamental xale bi juddu ci boobu ambiance bu nekk xale bu baax bu juddoo ci kër nga xam ne ay saaga ay rëbbante ay xeex ak ay xuloo eh, pexe du am mais yar ba du baax yar bi du baax donc loolu lu am solo la kon dañu war a ñëw ci tànn bi tànn bi booy tànn jabar booy yar sa borom xam-xam yi ne nañu booy yar sa doom ñi naan su amee juróom-ñaari at ñi naan su amee lii ñu naan su amee laa ñu déedéet boo yar sa jabar yaa yar bi ngay tànn yaayam bi ngay tànn soxna nga yar sa jabar te yàlla wax na ka fa saalihaatu xaanitaat xaafizaat bil xay bi jigéen boobu rekk ci baax <laughs> saalihaat mu nekk nit ku yiw nit ku baax xaanitaat mu nekk mu ragal boromam lu muy def lu ne mu ne ah yàlla de mag may xool xaafisat biir xay bi mu wattu boppam mu wattu boppam ginnaaw borom këram ci ndimbalal yàlla mu wattu boppam bu fi borom këram nekkul ba garde boppam ba borom këram dellu si ci ndimbalal yàlla jigéen boobu rek moo ci baax tey borom bi moo ko wax suratu nisa waaw léegi nag bu fekkee yaay baax na baay aussi war na baax baay dafa nekk ku am jom parce que yàlla moo ko moo ko may moo ko def mu nekk responsable rijaalu xawaamuuna ala nisaay ma fadallahu baadahum ala baadin wa bima anfaqu min amwalihim góor ñi laa def ñuy kilifa ci kër yi parité moom yàlla wax na ci ba pare fan li rijaali nasibun mi maktasabu bu fekkee góor fàggu na dara ci ñaxam moo ko moom wala nisaa'i nasiibun mimmaa na jigéen aussi su faggoo dara ci njaqam moo ko moom kon loolu loolu rek mooy parité ah waaye ci liggéeyukaay ba la yem ak si wu ci kër gi kër gi dafa am kilifa mooy borom kër gi moom la yàlla jiital pourquoi ma fadallahu bahdum ala bahdin parce que yàlla moo leen jagaleel loolu ba addinay tukki kenn dara du ko dindi beneen bi muy woo bi ma anfaqu min amwalihim et à cause de li ñuy dépensé ci seen alal kuy takk jabar góor kuy ñëbal góor kuy faj góor kuy wadd góor et cetera yàlla ni à cause de xaalis boobu ñuy dépensé su àddina demoon sax ba jigéen ëpp alal boroom kër lu tax mu nekk kilifa de lu tax parce que fadlullahi bi la moo tax yàllaa ko jagleel góor rek loolu jax na <laughs> kon baay bu mel noonu la bu amee yaay ju baax dafa war am baay bu responsable mooy baay ban baay waaye bu nga xam ne benn day daan dooleem jukkoom rafet na am na diine waaye bu jukkoom rafet day jukkoom rafet moo am diine te nangu daan dooleem ndax góor lenn benn góor moo gën bon ci góor yi góor gu bëggul ñaq moo yées ci góor ñi jigéen ju yées ci jigéen ñi mooy jigéen ju fiir waaw kon loolu mag ñee ko wax léegi nag soo demee bay ànd ak sa soxna parce que déglu bu baax yar bi dafa commencé fu sore sooy ànd ak sa soxna nga ñaan allahumma jibna min asheytaani wa janibi sheytaani ma razaqtana waaw dañ ñëw rek commencé déedéet balaa ngay ànd ak sa soxla da ngay ñaan bismillah comme jullit lépp lu muy def nga wax lii yow yàlla musal ñu ci seytaan te li su dunu bëgg su dara su dara sosoo ci lii nuy def yenn ko musal ci seytaan <laughs> loolu mooy tax bu ëllëgee seytaane du ko mënal dara lu am solo la rabbi habli mina saalihin yow lay war sëgal ma ba la ma am ci lii mu am ci doom yu doom yu baax yëpp da koy wax ndax yàlla salaam nee na eh, xale bu am diine xet la ci xetu aljana yi xale xale bu baax léegi nag xale bi ñu ngi ko yar ci ba âge bu gën tuuti c'est-à-dire bu mu juddoo yent bi sallallahu nee nañu ñu fexe ba xale bi ñu yar ko de ci nu mu gën a baax ndax ndénkaane yàlla la ndénkaane yàlla la wala yàlla bul dénkee da koy toppatoo nee na xale bu juddoo nañ ko ci ci ngénte bi li ciy farata nañ ko wat nañ ko tuddee tur bu rafet nañu rey xar am ñu ni ñu nodd ci nopp bi li xam ci nopp ndeyjoor bi lu tam euh, ci nopp càmmoñ bi waaye am na ñu dàq loolu am na ni wérul waaye am na ñooñu am nañ fu ñu wékku parce que su fekkee xale bi lu mu war jëkk ci addu dégg ci àdduna mooy laa ilaha illallah la ilaha illallah mu dàq bokkaale saxal tawhid lu am solo la kon lali mënoo ko dàq ba tax gaa ñi di nodd ci nopp ndeyjoor li xam ci noppu càmmoñ waaye laa ilaha mu jëkk koo dégg ba jëkk dégg musique <laughs> eh, léegi nag eh, nampal bi kuy nampal yaay yàlla ni wal walidaatu yurdihna awlaad awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman arada yutima radaxata yaay yi dañu nàmpal xale yi ñaari at yu mat xaw lay xawlayni kaamilayni ci ku bëgg matal nàmpal waaw léegi nag ñun benn semaine ñaari semaine benn weer dama sonn xale bi na toog foofu nga dem wuti biberon et cetera et cetera meew ba mu meew bàyyi ma wala nga nampal ko ba mu fer nga jox ko meew bàyyi ma bu comporté woo comme bàyyi ma alors plus tard te il a été prouvé que nga nampal sa doom pendant deux ans dafay tax mu nekk ku dëgër yenn feebar du ko laal et cetera et cetera wala bu kii dana am solution bu gaaw loolu yëpp donc yàlla àdduna ci. waaye foofu nag ñaari at yooyu nga xam ne day nàmpal yaay mënul dem fen ndax ca la xale di commencé kii di raam di doxantu di jëm jàng dox moo tax yàlla fi na fi bu yóotihin na waxar na fi bu yóotihin na période boobu jigéen bu mu dem fen na toog toppatoo xale bi surveiller xale bi waaye boobu période ah, bàyyi wa alal mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf laa nukallifu nafsan illa wusaha période boobu nga xam ne jigéen mu ngi toog di éduquer di topp sa topp xale bi di ko kii di ko suxat ba dara bañ ko gaañ bàyyi na génn li ñuy xale bi ak yaayam di lekk ak seen koddaay ak yi bare bàyyi la war de ci nu mu gën a baax waaye nag ci lu mu mën aussi ndax yàlla tegul kenn lu mënul mm-hmm. et eh, donc nàmpal gi au de deux ans mu jeex doo dem ba <laughs> yaay kaay ma nàmp <laughs> yaay kaay ma namp n'est pas normal waaw ah, au de deux ans allaitement bi war na jeex ma ngi nee nañu sax booy nampal sa doom de au de deux ans daf koy indil nëx doom xel aussi ñu bàyyi ci xel <clears throat> waaye gis nga nag bu dee ba am deux ans da ngeen di gaawantu ndax ruux ci boppam mu bëgg am lu mu jàmm ruux dafa am lu mu bëgg jàmm boo góorgóorluwul ba mu war a jàmm yàlla rek mu jàmm keneen wala leneen ndax ngay jëkkante période boobu dangay fexe ba gaaw commencé dugal ci moom bëgg yàlla période boobu la période foo commencé premier sept ans yi ñaari juróom-ñaari at yu jëkk yi il faut mu foo ala kulli xal mais foo bi da ngay orienté am na ay jeux yi nga xam ni boo bësee mu ne laa ilaha illallah laa ilaha illallah jeux yooyu xale yi mais yooyu ngay wut waaye jeu papa mama bi bi bi déedéet da da koy wutal jeu man allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim muy muy répété allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamualeykum mu ne asalaamualeykum voilà da nga koy jàngal ci foo bi loolu yéen saa sam nee na boobu période période foo dafa bokk ci yar gi période foo boobu da nekk ci xale bi di ko xamal di ko kiiwal di ko tete yi bare nga wax ko yooyu lu ci am solo bu demee ci àgg sept ans nag am na juróom-ñaari at nga commencé ko jàngal nag booy julliti ni ko kay julli julli waragul ci moom de dix ans jëm quatorze ans nga koy imposé waaye dix ans la yent wax sallallahu alayhi wa waaye juróom-ñaari at bu ma rek da ngay commencé ni ko booy julli ni ko aywa kaay julli xale yi commencé jàng alxuraan jàng alxuraan ngay xamal addis di ko expliquer ay histoire xamal ko alwudu njàpp alxuslu sangu set tayamumu tiim alxaydi regal wa nifaas yi ak seen wees ak ni ngeen ko jàngee ci laxdar yi rek ila axirita mu commencé xam loolu xam nu muy jaamoo boromam ndax jaamu yàlla gi ma xalaatu jënd wal ins illal yahbudu ah waaw comme dama bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma jaamu bi lu ci ëpp solo mooy julli gi julli mooy baax ëllëg loo def ñu teg ko ci kaw julli waaye su julli baaxul dara teguwul fenn lu ñëw pëtax kon luy defar julli gi moo tax lax laxdar yu dafa am solo nit danga koy jàngal laxdar yu mu xam lan mooy sobe ndox mu laab te man laabale ndax ndox dana laab te du laabale <laughs> waaw meew laab na waaye doo ci jàpp <laughs> et cetera et cetera du ma ci sore parce que c'est pas ça le but du truc nga xamal ko yooyu boo wéeteeg moom di waxtaan ak moom di ko jëm expliquer àdduna bi du rek ay neex neex am na ay jafe-jafe nga koy nettali histoire yonent yàlla noox alayhi salaam fu mu jaar ak jafe-jafe yi yàlla ibrahim fu mu jaar ak jafe-jafe yi yonent yàlla moussa yonent yàlla isa yonent yàlla shuaib hein yonent yàlla saalih nga koy expliquer seen histoire ak fu mu jaar ba mu xam ni ñu fi yàlla yónni woon te ñu yeneen nekk ñu fi woon rek ci jëpp jàppandal ci lu neex rek àddina dafa ànd ak ay jafe-jafe dafa ànd ak ay nattu dan yàlla bu koy expliquer yonentam ne que dama bëgg pour sa sa ngëm dëgër nga xam ni jafe-jafe gi commencé wul ci yow ñu fi jiitu woon dañu amoon ay jafe-jafe waaye dañu muñoon ay loolu xam naa daan ci agsi donc éducation lan moo yar lan moo ko tax jóg dañu bëgg xale bi nekk xale bu bu yiw xale bu simple xale bu toroxlu xale bu am ragal yàlla xale bu mën dund ci société bu mu nekk waaye loolu ay ci biir njàngale mi nga koy expliquer mun mu baax jëmale ci ay moroomu jullitam baax jëmale ci yàlla euh, waaye fu mu commencé jaamu yàlla boo baaxee ci ñeneen ñetti te jàmmoo yàlla doo dara foofu la kon la la taxbuduuna illa allah wa bil walidayni isanan wa bi qurba et cetera ba ca fem bàyyiwul dara waaw kon bu période du foo passé maanaam agsi na ba juróom-ñaari at yi passé na période du commencé jàngal ñëw na laxdar yoog asma yoog ñoom si alxuraan baqara ba naasi période boobu ngay xamal loolu yëpp mais en même temps mu commencé jàng école wala leneen walla métier pour man am lu mu lekk yar bi baax na waaye il faut instruction bi aussi ànd ak moom foofu nag la instruction xale bi defar nga xelam baax na mën na commencé nag léegi di jàng <clears throat> sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yar nit ñi la ko yàlla indi woon moom dafa nu mu daan dafa am pédagogie nu mu daan yare nit ñi dafa patient dafa yàkkamtiwul buy buy jàngale du yàkkamti yàkkamtiwul ci dara lu muy jàngale dana ko répété moom salaay salaam trois fois pour nga xam soo nëxee xel du la du la du la du la du la kii du la forcé du la du la saaga du la du la toroxal da daf lay dafay xool ni nga ni sa niveau sa xel tollu mu ànd ak yow ci noonu ci noonu ba ngay comprendre nee noonu la ñuy jàngale waaye nag suñu jàngalee ba ñu xam li yàlla wax bu ñi ko appliqué baax na ñi ko appliqué wul nag day dëgëral ñoom <laughs> noonu la daan jàngaleem daan mel nga jàngal ko li ma waxoon léegi rek nit ki dafa war a bëgg moromu jullitam hmm. eh, yent bi saa salaam yaakaarul ni moo gën moo gën ci nit ñi de yàlla ko wax waaye moom daaw ko wane ci jëfam ak ci manière am dafa modestie voilà <laughs> euh, pour moom jigéen ak xale yépp ñoo yem ci moom dañu am droit ñu considérer leen ñu respecte leen xale boo ko bëggee yar da tubaab wax na am en matière d'éducation on ne reçoit que ce que l'on a donné parce que su fekkee xale bi da ko woon mbaax woon ko yaatu woon ko yiw woon ko bëgg yàlla bu waxee nga ne ko ah yàlla bëggul loolu bu ko waxati bul defati nii nangam mais loolu nga ko inculqué mais loolu la lay delloo nga am doom ju baax donc souvent dañuy wax xale bi moo dëgër bopp xale bi moo nii dikki fekk na xoolaatal sa bopp yow mi yar xoolaatal sa bopp waaw moom dafa mu desoon comme ni nga waxee léegi Serigne Diop très pudique daawul juste manifeste bu kontaanee mu ñu xam ni kontaan na boo amee lu ko naqari aussi kanamam xaw a kii sallallahu alayhi wa sallam dafa mel noonu ne ñëpp rek sallallahu alayhi wa sallam نبي بخير الوحي لا يتشرف ينبي أفر عن الجاني وخدعت أنكه بين يلين بسم الله إينا ويانفو ينبي mooy bashirun nasirun mubsirun mutaatifun nun ñëpp moom mu yaakaar bis penceewu jëleenoo jol màkk yaa leen gënt nabiyun azimul xatri bil xaq mursala boo amee microbe te fajuloo ko ba tul ci da nga jëm su ndexe yàlla waaye àq ji aussi àq ji nga xam ne àqu sa sa mbokki jegeñaale ci alal ji ak àqu miskin yi ak àqu fuqara yi ak àqu àqu ibnu sabil yi ak xaarimine yi ak muhammadina alayha yi <laughs> soo ko génnewul parce que ñooñ ngay jox asaka soo ko génnewul alal ji day feebar di feebar rek ba boutique bi fermé <laughs> parce que ak génnewoo microbe bi nekk ci biir muy aqu say mbokki jegeñaale hein voilà <laughs> moo tax te bu fekkoon nga génne asaka ji dina baax ndax yàlla yemalewul ku ne dafa am lu mu la tëdd li yàlla wàcce yépp su fekkoon te ni ñi génne asaka kon pauvreté ak ñàkk du am ci kaw suuf waaye dafa am ñu bëri am lu bëree bare bare bare bare bàyyi ko ci compte yi rek comme ça muy nelaw moomuñu ko ndax li nga am moom ka soo ci génnee asaka yaa ko moom yàlla bindil la ci tuyaaba nga dem ci aljanna ndax foofu fekk wa aqimu salaat waatoo zakata ci topp gëm nga yàlla ban yaa ngi julli ndax yaa ngi génne asaka waa ji dafa ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal sama bëy wi daal soow mi barewul mu ne ko la tee nga dem ak sa bëy rek mu ne ko ñaanal ma yaa rasulullahi sallallahu mu ñaanal ka bëy yu bare soow muy jaay ci soow jënd ci ay bëy di jaay ay bëy di jënd ay nag ay xar ay kii affaire yi bare ba mënatul nekk Médine mu génn Médine <laughs> mu demee génn Médine daan na julli si aljuma de mu dem ba kenn gisatu ko <laughs> ba affaire bi kenn yéen bi saa soom yónnee ci moom dem leen ni ko na génne asaka gaa ñëw génne asaka bi mu xool affaire yi mu bare ci bët bi <laughs> mënuma ko mu yónni waat gaañ nañ dem leen ni na génn loolu mu waroon génne asaka naka xaaj ci digg bi mu génne benn côté bi asaka mu xoolaat ko xol bi bañ parce que xol mooy joxe xool bi bañ mu ni mënu ko lu lu gaañ ñi wàññi wàññi génne rek mu ni mënu ko yéen tamit bàyyi leen ko balaa ñëw fa jur ga yëpp dee mu del soit yéen tamit ni amul pexe amul kii nitu safaral répété suñuy ki fi gën no ànd jiin lu baax te soroy daañu hmm. tëppale jula ak fen sol sa biir di baa damu fees wetu alwaal borom ñu yem sa ci dunia di la jay hmm. watti ki musaas ak ifaas hmm. sañ sa jug di sa ku ji mooy bu sa jabar waxee nga ne xam lii maa ka def ci maa ya tey dootu nga di xasa ku dóor fatti sarti yàlla yi tey rabbana jëril di la xaar di xam ne daa torox mu doy jazakallahu xayran boo bëggee lay da nga yem bis dina ñëw dóor bay lay hmm. adduna kërum na xëy loo fi gis dafay mujj wey hmm. dex gi géej gi dañuy fertaal bu takk daama safay laamu fii kenn du fi ilaa laay bun kadi mooy jazakallahu xayran donc toujours ci suratul Israël yàlla ma ngi digal jàmb waaw laa taxtuloo nas bakkan dafa araam kenn du ko rey du dul ci dëgg bakkan dafa araam وإنه إذ أراد الله نفأتنا أبدا من نوره نورنا محمد فبيمنت بإدفلني وإنه إذا أراد الله نفأتنا أبنا من نور يننت بجهل لقوا إنه إذا أراد الله نفأتنا أبدا من نوره نورنا فاما وإنه إذ أراد الله نفأتنا أنا بالنور غفراننا إنه إذ أراد الله نفأتنا أبنا من نوره نورنا بالعالى وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبنا من نوره نورنا فامنين ما أرادوا رحل والورقاء فنم من أجل أوجرانه نبيل الله وإنه إذ أراد الله

jazakumullahu xayran xayral jazaay waaw <laughs> ah, imam ali donc suratu isra yu bare yàlla subhanahu wa ci mbaaxam ma ngi guidé jàmm bi ci ni mu war a mel ci société atul booy natt na mat booy peese na daanu loolu dafa lu am solo la ci yonent bi ndax moo yoon yoon yonent yàlla Shuayb ba ci ñooñu ci waa Madiyana mu wax leen ba sonn ni leen bu leen dee natt bu ngeen dee natt un mètre na mat un mètre waaye ngeen natt un mètre def quatre-vingt-dix pour gagner centime yooyu ngeen di gagner riba la baaxul bu leen lekk alal nit ñi ci tappale wala takulu amwalakum baynakum bil batili ah <laughs> et cetera alors boo dee peese aussi un kilo du mat mukk un kilo bu ñëwee balaa ma nga kii yooyu baaxul baaxul parce que ña ko defoon ci jamono xoolal fi yàlla jaar ñoom waaw donc yooyu yëpp bu leen wax lu ngeen xam ni xamu leen ko oysan voilà bu leen bu leen wax lu ngeen xamul ndax indal basara wa sama wal fuaada kunu awlay kaana anhu masula boo waxee sa làmmiñ loo ci wax dañ la koy laaj ëllëg sa sa nopp sa sa sa bët loo ci xool dañ koy laaj ëllëg lu tax yëddu aram waaye yaari mu ale yow sumxatu ci lax dara yu <laughs> nit nekk ci néegam tëju nga ñëw di di di di di yëddu bu ñu ubbee seen bunt rek sa bakkan toj fekk yaa ngi doon déglu man kay dama jaaroon nii rek <laughs> aaye na ko bu yàgg ah parce que yàlla neen loolu yëpp dañ la koy laaj surtout ni Israël lu bare lu ñuy tey ma nga fa imam Ali karamallahu wajhu nee sa doom dangay ngay foog moom juróom-ñaari at yi jokki juróom-ñaari at ci topp nga jàngal ko julli ak yi bare xamal ko lu bare ci àdduna juróom-ñaari at ci topp nga ànd ak moom gunge ko ci àdduna di waxtaan ak moom di ko yee ci lu bare doom adduna du dara nangam nangam doom nii nii nii ah doom bu la yàlla may gudd fan bëgg dem Saalum ah Saalum Saalum ni la ñu mel de boo bëggee ngeen nekk ci jàmm moytul lii moytul ma lii boo bëggee dem dem waalo ba demee seen jukko nii la ñu mel ba demee Kajoor et cetera et cetera nga ànd ak moom ci adduna seen sax bu dee voyage ngay voyage ànd ak moom al imam ali nee na ne bu fekkee ñetti ñetti ñetti juróom-ñaari at yooyu weesu na muy à l'âge de vingt sept première année yi sept deuxième année yi sept troisième année yi su amee xale bi amee vingt et un nag bàyyi ko mu dem addunaam ndax la nga waroon def ci moom yëpp def nga ko ci dara du ko dara ko dara dootu ko jaxalati dara dootu ko këf nekk na nit dëgg dëgg dëgg lu njàngam sore sore université bu mu dem moo xam xarwaar la dem wala euh, Christian wala feneen fu ma dem ci àdduna lu njàng mi kawe kawe du ñu fekk base ba fond ba baax na ba pare dara du ko yàq donc mu ni ci piir ci habitude bi ngay habitude habitué sa doom lu mu am habitude di def ak ci waxtaan bi ngay waxtaan ak moom ak dialogue film jeex nga teg leen yéen nu ngeen gisee film bi film la de waaye message bi réalisateur bi ban message la bëgg a passé ci film bi ngeen discuter. waaye bàyyi laa bu nga xam ne mel ni man dama bëgg samay doom respecté ma bu ma ñëw rek maa nga aju fële <laughs> du noonu fu nga wàcc sa bopp discuter ñoom ci jamono luy xew ci jamono lu ciy baax ah doom lii xew na de internet nga fi xew na de parce que am na côté yu baax da ngeen ci gëstu pour avancer waaye am na lu nga xam ne bokk leen ci de <laughs> xew na ci jamono waaye bokk lañ ci xam ko waxtaan ak ñoom lu tax nga dem ci taarix dem ci histoire yonent yi dem ci vis Siraj Malik jalaw talaan sa sa sa maam Cheikh Ahmad Bamba ñeneen nañu nit ñu baax ñi seen maam sax nga ne sa maam diw bëggul woon lii parce que lii alors xale bu mel noonu nga xam ni enraciné wu na enraciné wu ne na ci valeur de civilisation am ci xayam ñu xay xay mooy valeur de civilisation mag ñi nekkoon ak yooyu lu ci baax mu samp ci dëgg dëgg dëgër pare ubbeeku ci internet ubbeeku ci internet ubbeeku ci euh, science ak technologie avancée parce que addinaa ko laaj enti wax na ko dem na wuti xam-xam donte fekkonte ne la loolu ala kulli hal waaye nag aussi chinois yi gis ngeen caaxaane wuñu seen seen seen seen civilisation ba seen lekkin sax c'est mondialement connu la cuisine chinoise dañu fonk seen aada fonk seen cosaan pourtant ubbeeku nañu ñoo raw ci lépp mooy xool léegi technologie yu bari ñoo ci nekk de pointe ñoom ñoo ci nekk te ba léegi ñu ngi adossé wu ci seen seen civilisation seen aada seen cosaan seen culture waaw lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi nee na ndono du alal li nga gën a mën a bàyyi sa doom ci lu baax mën nga yar ko yar bu baax <laughs> eh, dafa am benn waa ju baax ñu koy waxal Luqmaan gis nga sóoratu Luqmaan yàlla indi aaya di wax ni bu ngeen bëggee ànd ak seen doom te di ko yar nii ngeen di waxtaanee ak moom ni ngeen ko yaree moo bis bi ne nu jàng ko romb ko ban ban jeexital ban jàngit lañ ci gis ndax li nu yàlla wax ci Luqmaan nu mu def fu mu jaar ak doomam ndax nu noo koy def ak sunu doom dafa wax ni ko yow sama doom bul def sirk ndax tonjala bi gën rëy te du ko baale mooy bokkaale sirk sirk bokkaale inna allaha la yaxfiru an yashrika bi shay'un wa yaxfiru ma duna zalika li ni yashaw yàlla du baale bàkkaaru bokkaale mukk gannaaw bàkkaaru bokkaale na rek mën na baale lu ko neex gis ngeen gis ngeen kon loolu dafa dugg ci xale bi bu baax baax baax mu ne booba seen insaana bi walideyi digal nañu nit ki mu defaral njekk ay ñaari waajuram amalat u ummuhu yaayam ëmb ko wax nan ala waxanin ci coono ak coono wa fisaaluhu mu fi fi fi xaamay ni mu am ak moom di ko ko nàmpal pendant ñaari at donc sant leen ma ak seen waajur ndax kat ilayel masir ci man ngeen di dellu si loolu yàlla subhanahu moo ko wax waaw Loxmaan wax benn bés doomam ne ko yow sama doom bul bokkaale ndax bàkkaar bu màgg la tooñ yàlla bu rëy la fexeel ba bu ko def euh, nanga nga topp say ñaari waajur nga defal leen njëkk su fekkee nga ak màgg nga ak ñoom ñu digal la jàmm yàlla jaamul yàlla waaye su fekkee dañ la digal moo yàlla lànkal moom la imam laxdari di wax ci so ci laxdari yu la taaxata li maxliixin fi maxsiyatil xaalixi du dagan benn yoon ci mbindeef muy topp mbindeef na moom donte fekkonte ni bàyyi la wala yaay la wala ku ma doon ci mooy yàlla ndax mooy yàlla kenn du ci topp kenn yàlla ci suratul ci luxmaan mu ne ko su fekkee sa ñaari waajur dañ la digal topp yàlla topp leen waaye suñu la diggee nga sirk bu leen topp waaye nag àndal ak ñoom ci nu mu gën a rafet ci àdduna dégg de soo nekk sa papa même du jullit sax waaye moo la jur say waajur tax bi lu wàllu ni istaanan moo tax bu xool bu bi lu wàllu ni saalixay ni <laughs> wa bil walidayni waaye jur la daal donte fekkonte ne sax gëmul sax la ma gëm waaye waaye jur la ci moom jaar ba àdduna defal ko njëkk rafetalal jëm ci moom wa bil walidayni ihsaanan jox boobu garaat yàllaa ko jox waajur moo tax bu kenn war kenn ci doomam <laughs> bu kenn jéem war kenn ci doomam waaw donc lu am solo la eh, mu ni ko nag aussi su fekkee kenn ci ñoom digal na la mooy keneen ki digal la mbaax toppal ci ki la digal mbaax <laughs> ci ki la hmm, hmm. mu ñëw ni ni ko yaa bune ya axemi salaat gis nga sama doom na nga fexe ba taxawal julli ndax julli ak taxawal julli bokkul <laughs> ah lu tax bokkul balaa ngay julli dafa li ñuy wax le li jiitu julli taaratul xadas taaratul xabas ah eh, eh, wala tarkul la tarkul kalaami wa kasiratan ah wastibadul xibla jiblu xibla ah wa xawrati nga sutural awra et cetera et cetera donc balaa ngay julli te yàlla à chaque jublu ci julli daf naan ak taxawal la julli balaa ngaa julli dafa ay préalable da laab ci tojle laab ci sobe jublu xibla suturaal awra bàyyi wax bàyyi euh, wakkatu ki yooyu ju léegoo léegoo <laughs> ju waaw laab lu tax lu tax xam nga laab lu tax mu wax ko ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin ba mu waxee ci mbiru laab ci sank ci njàpp ba pare daf ne jubluwuma ci sonn leen walakin yuridu yutahhirakum dama leen bëgg a laabal li yutima nimatu aleykum ba li ma bëgg ci yéen ci lu baax ma nekk laalakum tashkurun ndax li ma bëgg ci lu baax ci yéen mënul nekk su fekkee laabu leen waaw sëñ Diop lu nekk foofu allah waliyu lazina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur xoolal wax jooju yàlla moo jël en charge problème mu mbiru ñi ko gëm lu tax daf leen di jëlee ci lëndëm dugal leen ci leer waaye su fekkee yow jàmm bi laabuloo leeru yàlla du mën dugg ci yow ba yàlla di mën jël en charge say mbir <laughs> inna lazina kafaru inna lazina kafaru ñi nga xam ne dañu weddi nag awliyaawu mu taxut seytaane moo jël en charge seen mbir yuxrijunahum minu nuuri ila zulumaat seetaan def lay jëlee ci leer jógal la ci lëndëm di la manipuler rek ngay kayang kayangi rek <laughs> parce que leeru yàlla nekkul ci yow waaw donc loolu lu am solo la gis nga xam na ko suratu nisa voilà <clears throat> mu ne donc sama doom dil taxawal julli daañu gis fii ni Luqmaan li mu jëkk wax doomam gannaaw bi mu nekk bul def sirk daf ko sant mu julli daf ko sant mu julli wax naa leen julli mu ngi mel ci diine ne bopp mel ci yaram bopp soo ñëwee fekk jëmm nga dindi bopp bi dara nekkatul waaw donc noonu la julli mel ci diine euh, musulman la waaye duma julli ah yàqu nga jël naa engagement bi ba pare ndax ba ngay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenn forcé wu la ikra fi diini amul forcé ci diine yaa choisir sa bopp ba dugg nga nga dugg ba pare bañ respecté règle yi kon yëf yaa ngoog loolu mooy problème bi julli ma tax mu jëkk ko xam ni ko yaa bu ne sama doom axami salaat taxawalal julli wal julli kat ndax su julli baaxul dara baaxul waaw hmm. donc ci xale bi dal départ nga ancré ci bopp bi ni di julli boo amee sept ans rek booy julli ñu ko kaay muy julli ci sa wet forcé ko ci julli gi de parce que amagul dix ans nu yent bi wax ba amagul dix ans da ngaa julli rek ànd ak moom boo jullee ni ko kaay ndax mu wax mu tàmm ko ndax mu miin ko bu demee ba dix ans nag forcé foofu lay commencé foo jaar da nga julli waaye su demee ba 21 naa nag foofu xam nga léegi même Ali wax rek mën too ko forcer magam jëmb la li tubaab di wax parvenu à l'âge de raison chacun contribue à sa propre éducation <laughs> nekk bu nekk mag nag léegi nag léegi nag yow war a éduquer sa bopp voilà éduquer sa bopp <clears throat> Lukman yemul foofu hmm. mur bil mahrufi sama doom di digle lu baax wanaa anil munkari te di tere lu bon wasbir ala ma digle lu baax tere lu bon principe boobu moo tax xeet yonent bi gën ci xeet yi sallallahu alayhi wa te léegi doo romb kenn ba ni sa bët bi njax nga ci suufa nga ci koo wax muy la eh, mais est-ce que ça te regarde c'est ma vie privée non <laughs> en quoi ça te concerne c'est ma vie privée c'est nekku ci mais islam xamul loolu ñun dañuy principe bu digg lu baax tere lu bon principe boobu moo tax xeet yonent bi sallallahu alayhi gën ci yeneen xeet ci léegi nag koo bi nga baal ma de waaye mu lu ci seen tu vois kon kon fu muy baaxate muy baaxatee te kenn mënatu wax sa morom banqal sa tànk ah mu ne que di digle lu baax di tere lu bon te li la arrivé na nga muñ waaw mm-hmm. waaw Yeah. waaw walaay wa man salla bi najaasatin ku julleeg sobe ah eh, eh, waaw xam nga yooyu nag saay <laughs> su su soo soo sàmmantewul ak principe yooyu <laughs> loolu neex mel <laughs> voilà Hmm. Hmm. Hmm. voilà ñu ñu ñu ñu continuer tuuti rek ndax mu àgg benn yoon parce que dafay waxtu yi dafay bëgg kii ngeen may ma rek ma àggale incha allah après nga dem après nga dem <laughs> ya ya bu sama doom taxawalal julli digleel lu baax tereel lu bon te loolu la ci dund gi na nga muñ zalika min azmil umur bépp problème boo am nii ngay def te fekk na yàlla waxaat na feneen ni wastahino bi sabi wa salaat inna allah ma sabirin mais xool ma mu wax foofu wastahinu dimmandikoo leen lan muñ ak julli lu tax inna allaha ma sabirin yàlla a ngi ànd ak ñuy muñ waxul ànd ak ñuy julli de lu tax mu indi loolu lu tax mu mu digal leen ci lu la arrivé ci àdduna ndekete ñaar nga koy réglé julli ak muñ lu tax ñu yàlla waxul ni maa ngi ànd ak ñuy julli waaw parce que daf ni la jullil nga dis ma sa soxla jullil nga dis ma sa soxla mën nga ko def ci julli farata yi waaye lu gën mooy nga def ko ci nawa ci nawaafil yi ci naafila yi parce que loolu la tax a sama borom man daal sama problème ngi nii <laughs> yaakaaruma kenn am naa yàqin ci ni daa ko rek de ma ngoog nag waaye man maa ngi toog di xaar yaakamtiwu ma yàlla ñu la waaw toogal xaar ànduma ak ñi pressé ànduma ak ñi découragé dégg naa ko waaye li kulli shay'in ajal iza jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaxdimuna loo gis dama ko sàkkal app sopp bi accès du retard du avancé seconde heure bi ma ko préparé bés ma ko préparé fa ma ko préparé rek foofu leer wax wax nga ma ko dégg naa donc problème boo am ndekete yàlla diggal na la jullu nga dis ko yàlla te nga muñ waaye inna insaana kaana ajulan nit dafa pressé <laughs> nit dafa pressé moo tax ma moo tax boo gisee ba fekkee wax nga ko yàlla yàlla bëgg ko régler tey ci cinq kër ci ngoon nga nga ngaa muñ di muñ di muñ ba tey ci quatre heures nga ni eh de sama borom daal déggul la ma ko xaar ma jël sàkki pexe <laughs> yàqoti na <laughs> alay ndeysaan mu ni toujours Luqmaan mu ni doom ji wala tusaahir xadaka linnaasi bul bul bul won gannaaw nit ñi mukk ndax nit ñooy nit ñi ñooy régler sa problème ñoo lay indil problème de nit ñi ñoo lay indil problème binduma la pour nga nekk fële yow kenn rek sa dun yow kenn dama la booleeg ay nit ci société bi nit ñi ñooy sa problème waaye nit nit ñi ñooy régler say problème <laughs> da yàlla lu mu wax fii Luqman xool lu mu wax doom ji dangay ngay vivre en société il faut nga nekk nit ku sociable il faut nga am comportement bu baax jaxasoog nit ñi mu amalaadi jëflante yi na rafet bu tourner sa dos nit ñi mu ni wala tamshi fil ardi marahan bul dox ci kaw ci nit ñi ci kaw ci kaw suuf di dëng dëng yi ma koy wax suratul Israa naan ka bul dox di dëng dëng yi ci kaw suuf parce que loo fi nganda ngandalu mënoo mënoo toll ne montagne yi te suuf si loo fi dëng dëng yi mënoo ko pëtëxal suuf si <laughs> surtout Israël <laughs> xoola mu ngi jox exemple nit ki ci ni mu war a mel ci société tuula nga kon ba léegi yàlla yar nañu wan nañu lu ñu yare à travers ay bay wunu de lépp lu mu war a waxanu ko ñun ñoo koy jàng rek di ko romb te duñ ko seetlu voilà inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur yàlla bëggul nganda ngandalu ak ko lu mu def ni <laughs> maa leen yóbbul bi saaku ceeb su doon man ñu kii de <laughs> yàlla bëggul loolu inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuur waaw mu mu encore dem ci doom ji mu ne ko wax sidd fi machietika booy dox na nga dox dox bu réglé bu dox di pant wala ngay kii jël sa jël sa mbaxana am na nga ko defee di di doxee benn côté li sëñ Cheikh di wax ñu naan diw moo am fulla diw moo am fayda nga nanga nga di dem di ci nag ba far mujj pant nag ba mujj far kii nag ñu ni fekk dof nga bu yàgg di di wut fulla ak mat ba ndof fekk la jiite yëguloo ko <laughs> yéen ci yàlla musal nga donc nit na nga rectifier sa sa démarche ni ngay doxee nanga ko doxee dox bu dox bu yiw voilà mu ni ko wax dut min sawtika te booy wax ak nit ñi nanga wax ci voix ci ci di baissé sa sa kaddu bul wax ci kaw gis nga mu ngi koy yar bul wax ci kaw inna ankara la aswaati la sawtul ximaar xamir eh, mu ni kii bu gën a kii euh, baat bu gën a bon baat bu gën a bu gën a sib mooy baatu mbaam <laughs> baatu mbaam mbaam mooy ngaax yow nit nga booy wax waxal waxal wax ju wax ju wax ju pose wax ju calme noonu la ñuy waxee ak nit ñi bàyyiwu ko fenn yoon waaw donc verset yi ñu gis ni dafa aayaat yi ñu gis dafa bëgg nit ki mu xool ci li yàlla bind ci asamaan ak suuf moom attitude scientifique inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wa nahar la ayatin li ulil albab rabbana ma xalaqta haza batilan subhanaka faqina azaba naar ni ma bindee asamaan ak suuf jàm bi di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di ci xalaat rek ba mu ubbil ko mu nekk xaarifoon bila xaarifoon bila mu xam yàlla ah xam yàlla du dara boo bari su nekkee xaarifun billah du changé ci bari dara de du tax bari am am am bëtu bëtu bëtu du tax bari am laaf du tax bari ki bari nu mu mel lay mel waaye yàlla ubbil na ko ba lu mu gis yàlla la ci gis nekk na xaarifun billah lu koy maye inna fi xalqi wa wal ard waxtilaafi leyli wa nahar bu ngeen koog di xool ni ma bindee asamaan ak suuf ak ni bëccëg bi di wutante ak guddi gi nga ci xalaat jën yi ngelaw li euh, tàngaay bi sedd bi nga ci géej nga ciy xalaat rek ba ni ah rabbana ma xalaqta hada batilan subhanaka xina azaba naar yàlla bindoo lii ci caaxaan sell ñeel na la te muyuñ ci ayu safara gis nga foofu niveau la mais scientifique yi fan lañ jëlee seen seen seen seen découverte ci observation nature gis nga kon yàlla du waxantu observation yi nga nature bi ngay def di jël ndox taal safara di ko tàngal di xool ndox mi ci ban degré lay bax donc yaay observé da nga am attitude scientifique di observé ndox mi ndox mi ba ak 100 degré mu commencé bax di bax nga ne ah kon l'eau bout à 100 waaw noonu la découverte yi ñu def yépp noonu lañ ko noonu lañ ko amee ci nature bi lañuy xool di def ay science di def ay physique chimie euh, ak calcul ay mathématiques ak yooyu ci xool jaww ji di di di kii di méngale di kii ba def seen découverte yépp ba am na moo tax euh, scientifique yi bare boroom xam-xam yu bare ci nasaraan dañuy dem ba ñoom dañ ni gëm nañ ni yàlla am na <laughs> gëm nañ ni yàlla am na te fañ ko jëlee ci li yàlla wax alam tara anna allaha saxara lakum ma fi samawati wal ard ci suratul luqman xamuloo ni yàlla moo bind lépp li nekk ci moo leen tàggatal lépp li nekk ci asamaan ak suuf wasbaxa ale ale aleykum nihmatan zahiratan wa baatinatan mu jox leen xéewal yi xéewal yu nëbbu yi ak xéewal yu feeñ yépp yàlla leen ko jox xool leen ci asamaan si ndox ma fi jóge bu dund amee ci kaw suuf ndox a tox fu mu jógee asamaan la ko fa jële la ko wàccee ah xoolal yàlla bu bëggee wax xéewal rek dafay wax ma wàccee ndox du lim ah bu bëggee wax xewal rek ndox lay wax parce que lépp ci ndox la jóge nun ci ndox la ñu jóge <laughs> waaw mu ni min annaasi man yajadilu fi llaahi bi xayri xilmin wala hudan wala kitaabin munirin am na xaañ see nag dañuy wax ci mbiru yàlla te li ñuy wax ci yàlla amuñ ci benn xam-xam kenn jubalu leen ba ba ñu ciy wax te kenn wàccewul ci ñoom téere bu leer ba ñu mën ci di wax ñooñu bu leen déglu des nga bàyyiwul bàyyiwu ko fen bu la kenn këf observation bi ngay observé àddina bii nii ba xam ni am na boroom yàlla rek mooy yàlla loolu mooy dëgg bul ci gën jële bu ñeneen ñëw di la wax ay wax ci wax ñuy wax yu tegul fen lañ ci jublu rek mooy réeral la bu ko nangu <coughs> te boo leen waxee is xiila lahum tabihu ma anzala topp leen di yàlla wàcce xaaloo ñu wax ni bal natruku ma wajadna alayhi abana <coughs> ñun daal lu ñu fekk sunu maam yi di topp rek loolu lañuy topp <laughs> walaw kaana sheytaan yadhuhum ila azabil sahiri donte fekkonte ni seytaane daf leen di woo rek te fu mu leen jëmale dara baaxu ci mu tax mu leen jëmale ci safara sahir aliyasu billahi yenn ci yàlla musal donc seytaane nit la wala menel jinnati wa onas seytaane nit la wala jinne nit ku ñëw di wax ci lu nga xam ne lu ma xamu ci dara indil la benn benn benn da benn dalil benn benn lay addis nee na aaya yàlla e nee na lu muy wax yëpp daf ay dafay njortaram rek ci njortaram rek la koy waxee kooku doo ko topp waaw li nga gëm ñu def ko ci ba nga nekkee xale te muy dëgg laa ilaha illa la lu baax tere la lu bon wax la nga nekk say consitoyen ci jàmm ci mbaax génnee asaka nii nii nii comme sourate Israël yàlla wax yëpp li ma waxante nii nga nekk ci loolu nit bëgg la gëm loolu leneen bu leen topp foofu la foofu lay waxee mu Luqmaan bàyyiwul ba léegi man yuslim wajhahu lillahi ilallahi ku jébbal boppam yàlla wa huwa muhsinun gis nga day ñëwaat ñaari vérité yi révélation coranique indi day ñëwaat mooy ñaan ñaari dëgg yan dëggu omatu ci yàlla ak dëggu def lu baax ala xafun alayhim wala amisun doo doo doo bu tiit bu leen ragal ci loolu yàlla wax naka ba pare ku nga xam ne kenn gëm na boromam te jébbalu ci yàlla kooku de jàpp na ci buum gu dëgër gi waaw ki nga xam ni nag dafa weddi mun ko yent bi bul sonn bul sonn bàyyi koog bàyyi koog weddem waaw ndax ndax dan ci man la ñuy dellu booba daañu xam zalika bi anna allah huwa alxaq ndax loolu yàlla mooy dëgg wa anna ma tadxuuna min dunihi huwa albatil li ngeen fi gëm dul yàlla rek loolu daf leen di réeral ëllëg waaw te yàlla moo kawe yàlla moo mag njàngale boo gis benn bit la am éducation boo gis yar boo gis benn bit la am mooy nga àgg ci laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mu di wahbudullaha wala tushriku bi <laughs> wahbudullaha wala tushriku bi shay'an jaamu yàlla leen yàlla te bu leen ko bokkale mais nit su fekkee da nga am boobu boobu kii mu ñëw nag ni ko na nga liggéey ndax nit pour mu tedd ci kaw suuf il faut mu liggéey njàng yi science physique yeeg économie yeeg lu mu mën doon na jàng mu ni ko yàlla moo amee sa destin du dëgg kenn joxul boppam yàlla daf la jox donc loolu dafa dafa am importance parce que soo gisee suñu jamono léegi ñëpp ngi taxaw ci rajo bi ñëpp ngi taxaw ci télé bi rek di yuux fan lañu teg muñ est-ce que jullit lañu mais jullit da yàlla dina tu problème bu ne rajo boo xëyee suba télé bi ay yuuxu rek xanaa dund gi kon yàlla bi di wax ni dañu nattu mag ñi fu ñu jaaroon moo gën metti nun est-ce que ñoo ngi gëm yàlla ba léegi duñu bàyyi suñu bopp ak yàlla li li li waa waxoon doom ji ne que zalika min azmil umur wasbir ala ma asabaka na muñ ci li la li ñun daal kenn dootu muñ jooytu rek te li yàlla wax la in shakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi la shadida soo sante su ngeen sante ma dolli leen waaye su ngeen weddee lu fi indi weddi lu fi indi weddi yow dangay nga yeewu suba teel amoo xaalis nga taxaw ci tele bi ak rajo bi di yuuxu rek te am nga bët yaa ngi xoole yaa ngi taxaw ci sa ñaari tànk yaa ngi ak wér ak yeneen sa dafa ko xéewal yooyu weddi nga ko moo tax mu ni wala in kafartum weddi ngeen xewal yooyu kon nag lu fi sës mbugal inna azabi la shadid bu taxee il faut ñu delluwaat ci yàlla delluwaat ci njàngale alxuraan ak sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ngeen foogoon dafa da ngeen yaakaar ne dafa mas a yomb ci moom te daan toog ba ay kii du am sax waa këram la lekk te muy suñu rayukaay te léegi foo tollu ñoo ngi jàmbat rek kon fu nu jëm yàlla rek moo xam yenn yi moo xam xay bu am na ñoo xam ne dafa fàddu dafa nëbbu bu ci rey sa bopp doo ko xam ndax moom rek moo ko xam ndax moo xam kan mooy dund suba fii kan moo fi kan la fi wóor ni suba daa suba daa dund kan moo moo moo la wóor ni ko ci suuf sangam lay deewee waaw waaw xamuloo ko kon nit loo recherché recherché loo kii kii dafa am lu nga xam ne danga koy am <clears throat> inda allaha indahu ilmu saha yàlla moo xam kañ nga fi jóge yasalunaka ani ruhi <laughs> daañu la ko laaj de waaye ilmuha inda rabbika yàlla rek moo ko xam waaw du koy noonu la wax yéen itam farison kenn xamul saa kañ la waaw moo xam di nekk ci biir biir biir biir biir biir biir biir nit ñi bu doom boo jotee sa soxna mu ëmb ci njëlgeen bi balaa ñuy def ay euh, ñu ko waxatee encore euh, hein non non kii bi ñuy def pour xam ndax góor la wala jigéen la kii bi euh, échographie balaa ngay xam balaa ngay am âge yu def euh, moment euh, période bi nga war def échographie yàlla rek moo xam li ngay am rek mooy xam li ngay am waaw wa tadri nafsan bi ay ardi tamut <laughs> bakkan xamul ci ban suuf lay dewee inna allah alimun xabir yàlla moo xam yàlla moo kawe gis nga kon nit daal day dellu boppam yàlla gis nañu kon nit buy jàngale ni mu war a mel condition yi nit war a am pour jàng yar dëgg dëgg dëgg dëgg koo fexe ba ca ca ca départ ba nga xamal ko ni ñaari dund moo am dund àdduna te am na fu mu yam ak dund alaxira dund alaxira moo gën a yàgg te moo gën a baax waaye am na ñaari kër safara ak aljanna te la ñuy dugal ci ñaari kër yooyu fii lañ koy liggéeyee ci àddina bii boo jëfee lu baax fii yàlla fay la ko fële ñu bare seen problème mooy dekki amul fii daal ku de ku ku dee rek perte nga dekki amul te yàlla ni wa man kaana yuminu billahi wa bil yawmil axir boo gëmee ni yàlla am ni foo nga gëm ni bis penc am na yàlla daal layoog nit ñi sa iman soog di mat soo ko amul du mat léegi nag presque dafa mel ne kii bi jeex na bu xale bi demee nag ba am 18 ans 21 ans war na am jabar cycle bi commencé waat fu nu jaaroon dafa war tànnaat jabar fan la ko tànnee gis nañ ko boo amee doom nu muy def et cetera et cetera pour que jaamo yàlla ci kaw suuf mën continuer ndax sëy mooy tax ngay am doom mbindaa foo ni day day ñëw pour yokk xeetu yonent yi pour jaamu yàlla mën continuer ci kaw suuf donc il faut nit ñi sëy sëy sëy dakkal ko ci ni ko yàlla waxee njaalo baaxul wax na ko ba pare bugg ko léegi nag est-ce que boo méngalee yar ak xam-xam bu ci gën instruction éducation bu jiitu bu ci gën nit ki ndax su fekkee dafa am xam-xam rek te amul éducation <laughs> walla mu am éducation te amul xam-xam ci jamono jii ñu toll nii donc voilà les question yoo xam ne dañ koy poser suñu bopp xam nañ daal ni éducation dafay teg tele lu baax alors que xam-xam. dafa dafa mëneutre xam-xam bi su fekkee yar lalu ko borom kàccoor lay doon dafay am xam-xam te bu bëggee def affaire caay-caay comme xam kenn yaru ko dafay garaw parce que xam-xam baa tax ponkalam kàccoor lay doon <laughs> ndax am na pexe <laughs> waaw donc moo tax ñu ne toujours éducation yar moo jiitu waaye alakul yàlla moo am xam-xam parce que jamono ji ku nga xam ne mënoo sax xam bind ay numéro pour mën a composer téléphone numéro portable <laughs> yaa xam nga nan ngaa réagir ci ci ci biir ci jamono donc xam-xam bi dafa am solo te éducation bi dafa jëm ci éducation religieuse éducation morale éducation sociale diine ji ak def lu baax ak sa jëflante ngay jëflante ak citoyen ci biir société bi waaye pour nga jëriñu il faut nga yi instruction donc ak éducation dañu complétante benn demul sa morom des léegi nag sunu doom yi seen yar ak seen njàng ak fin ci toll ak coow li coow li bare li yooyu yëpp ay yeneen problème lay yoo xam ni xeju fi mënuñu ko développer bu fekkente ni yaru nañu dañ sant yàlla su fekkee yaru yaruwuñu ak ki la faute lanu naqadi ci suñu doom yi nii fotu kan la ñun la de du keneen de ndax suñu waay juri seetu ñun woon li nu am léegi ci diineeg néew ak mbaax ak njub bi di ko xeeñtu ñoo ko def si ñun kon suñu doom su mel ne ñun la ñun la waaw est-ce que suivre nañu recommandation yàlla ak sunna yonentam ci mbiru yar comme li ñu waxtaanee suratu Luqmaan ak suratu Israël xam ne yàlla ñu ngi ko digal wax ko yent bi ne ko gis nga nit su bëggee yar doomam dafa mel ne Luqmaan gis nga lii la wax doomam ndax loolu noo ngi sàmmonteeg moom wala déet est-ce que suñu exemple bu bàyyi ak maam yi topp nañ ci walla déet le rôle de médias internet ak <laughs> rajo yeeg télévision yeeg sketch yeeg série yi loolu yëpp ban impact la am ci yar bi kooku beneen thème mu conférence xajul fii waaw <laughs> alors dañu yaakaar ni école mooy yar école du yar bàyyi ko rek su demee école ba su demee quartier ba dana fa dana fa yaroo déedéet école yar ci kër ci kër gi la yaay ak baay ñooy éduqué c'est très important école ba xam-xam nga fay wuti voilà hein donc euh, grandeur u nation grandeur u réew ma ngi tenir ci spiritualité fonk bi citoyens yi fonk seen diine ak moralité ak nañu nekkee nit ñu yiw nit ñu baax ay jullit dëgg dimbalante defalante lu baax ragal seen borom ak combativité jot takku pour liggéey parce que seen réew kenn du leen ko defaral ba voyagé fii dem nga ni damaa dem dem naa extérieur liggéeyal ñeneen pour seen réew dox seen réew dox waaye seen réew yow kenn du ko liggéeyal jeunes jeunes yi il faut ñu wax leen loolu il si réew mi kenn du leen ko liggéeyal yéen a koy liggéeyal seen bopp dëkk bi pour mu avancer wala pour mu reculer ñeneen dañu bàyyi seen dëkk ñëw du leen dofle seen dëkk yéen a koy defar il faut ngeen taxaw mu dëgër parce que yéen war a assurer le rêve bi euh, yàlla wax ñent bi xam ne saa salaam sàmm ngeen te ku nekk ëllëg daañu laaj li nga doon sàmm fan nga jaarak sa njaboot <laughs> allahu akbar donc nan ci bàyyi xel bu baax a baax euh, allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana la tuzig qulubana baxda is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab rabbana la tuaxisna in nasina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna isran kama amaltahu ala alladina min xablina rabbana wala tuxamilna ma la taaxata lana bih waxfu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin rabbana innana samihna munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyihatina wa tawaffana ma al abrar rabbana wa atina ma waatana ala rusulika wala tuxzina yawma alqiyamati innaka la tuxlifu almihad rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim rabbana atina fi dunya hasanatan fi l axirati hasanatan wa qina adhaban nar bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم lima sabaqa nasiril xaq bil xaq walhaadiyi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi miqdaaril azim salatan taftaxu lana biha ababa rida wa taysiri wa taxlaqu bina ababa charra wa taxsiri wa takunu lana biha waliyan wa nasiran anta waliyuna mawlana fa nimal mawla wa nimal nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala zulumati wa nur suma alladina kafaru bi rabbihim yahdilun alhamdulillahi alladi anzala ala abdi alkitab lam yajal lahu hiwaja alhamdulillahi alladi lahu ma fi samawati ma fi l ard wa lahu alhamdu fi laxirati wa hakimu lxabir alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jaili malaikati rasula aw li ajmiati masna wa salasa wa rubaa azidu fi xalqi ma yashaa inna allaha ala kulli shayin qadir alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla hadana allah alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan qa'iman ila yawmiddin alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan qa'iman ila yawmiddin alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan qa'iman ila yawmiddin alhamdulillahi haqqa hamdihi alhamdulillahi haqqa hamdihi alhamdulillahi haqqa hamdihi allahumma wa axiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sharia góor gi dëkkoon ci ëtt bii di góor gi muse muse njaay jàngal Maodo li mu ko jàngal ñu ne moo ko jàngal risaala te bu njëkk mag ñi fii ne ku jàng risaala rek mën ngaa nekk imam ndax li atta sharia ma nga ci Ibrahima jëm yi tenir fii conférence bii mu def baayam bokk ci muxaddami Seydil yi Maali yi mujj ba nu ko joxee Maodo Maodo ni ko ca jox ko góor gi sa soxna sa fitu ñang aram bonko yaay alaaji Abdu alaaji Mansuur ak soxna Asiyatu si mi jur Moxtaar Diop ak Moustapha Diop di ñaareelu doomu sa fitu ñang aram bonko muy jàngal Maodo waqaf moom baayam ci muxaddam yi mujj yi Maodo yi la bokk waaw ba amoon sax safaan bu ko fa dal da doon xam bu taal ba cin la këpp ci kawam waaye nag booba du ndongo sant njaay nanguk taalibee tax waaw waaw doon xam bu taal ba cin la wël wëgër ñu këpp ci kawam ca booba docteur demeewul lii Seydil Hadji Malick moo ko fekk fi mu ko fekk yëngutuwul mu róof ko dugg ak moom ci mbaar ma bind faatiham boobu ñu tudde faatiha bu góor waaw moom ñoo ko xam ñoom ñiit waaw góor gi nee na xawma fu ma tollu de waaye maa ngi dégg xalima gi di kiic kii ji ba mu ko defee safara xëpp ko góor gi xëpp ko góor gi Isxaaqa ja muy Seydi Aji Malik sama turandoo daa ñetti fan lañ ca teg mu weer ñu raak amul sax cicatrice mooy liggéey sax amu ko bu doon nëgën dañ naan nañu ko yóbbu xaw ma fan ak fan ci ñuy defar ay kii ndax yaram wépp ñoo def ko woon waaye cicatrice amu ko muy faatee ngóonu ngóonu ngaana ndax faatee ñett la bu góor ak bu jigéen ak bu ngóonu ngaana bu góor bi moom la ñuy maas bind tomb ko maas ko bu jigéen bi nag dañu koy bind rek kenn du ko tomb kenn du ko maas ah, ah, dañu koy bind maas ko dañu koy bind tomb ko kenn du ko maas bi ci nag moom kenn du ko tomb kenn du ko maas ko mooy euh, mooy ngunu ngaana waaye nag ko fi jógee di ko defit ci lakk-lakk la maamu do mbir ma am na ca fatiha ba waaye ca bindkat ba la ne muy Seydi Hadji Malick ci ëtt bii la commencé li mu commencé waaw ah fi mu jànge fi Maodo jànge ka mu doon jàngal baayam wax fi li wax kon nanu ko tagal Maodo mu mu xam ne Maodo wëcculu Ibrahima seen maam jooju walla waaw seen maam la ndax mën na jur alaaji eh, maam Ishaq ndax maam Ishaq alaaji Mansour sëriwoo na ay at waaw ñoo maase faf mille neuf cent la nu kii mille neuf cent un alaaji Mansour mille neuf cent maam Isaaqa Dia mille neuf cent ko benn kon Maodo mën naa jur seen bàyyi maa ngi lay nuyu bala ngay dem alxaajo Malick càmm lañ koy wax ca Tiwaawan incha ba ñëw kër ga alxaajo Malick <laughs> ngeen baal ma jaar ko jigéen ñi rek yaa gis bi ngeen di way ñëw doo nga ñëw ci naa góor ñi dañ ma ko bas ci ginnaaw waaye naa kese malik xabaa malik ma lam yu malik lil yi kenn du seen mbokk mi malik man xaaju malik mawdo yu biinu saalik yow ma ni daay ku am mawdo waroo jaxase ay bunu ko mul woon seen mbokk bi seen baay bi nit ku ne fa mu juddoo wàllu yu fa mu juddoo day defar suuf sa rasulullah nga juddoo ardu ijaas moo tax mu ëpp pétrole ak ci adduna bi maw yonent bee defar suuf sa waaye Seydi Aji Maalik gi ngi juddoo fii ci waalo moo taxit soose baax na suufas waalo nee nañ bu njëkk xorom dong la woon waaye daanaka xorom amatu fi léegi suukar lay meññ ci barke Maodo alxaaju Malik man xaaju Malik Maodo yu beenu saalik yow ma ni daay kenn du sama turandoo kookoo defar mag ñi wala qad xada bayna suyuqi maqaamuhu yaaloo ala aljawsaai waddabaraani ya najla usmaan alladi abxaa lana li nu mawdo indil mooy nahjan xawiman saalika almaydaani ko ànd ak mawdo doo dof yaa najla Ousmane alladi abqa lana li nu góor gi indil mooy nahjan qawiman salika almaydani tuuba lana tuuba lana tuuba lana nilna almuna bi wasilatin ki nu am mooy xayru lwasaili daaimi l ihsani boo seetee magi Maodo yi wala magi doomi Maodo yi wala magi jigéen ne na boo seetee magi Maodo yi wala doomi magi Maodo yi koo ci gis xàmmee ko jullaasu o wa sahaabu o axnawka an tawsiifihi wa hum fi kulli makaani wa bi ilmihi ab sëriñ day jàng bilaa yow de xam nga ni gi yóbbuwul ak saata gaay lii nga fi wax <laughs> nekk commandant douane <laughs> kon nag di laay ko doon nu mag ñi war nga góorgóorlu jullaasu o colonel wala commandant jullaasu o wasaabu axnawka an tawsifi wa huwa fi kulli makani noonu naa dem bëgg si noonu yaa met mel absariya علم الهدى يا ترجمان العلم والقرآن يا بجمع الأبصارية علم الهدى سمم يا ترجمان العلم والقرآن القرآن مدار جاد بمالك يوي يوي وكمالك fi mu yaroo moo tax parce que jàmbaar bu la yaree dañuy seenu ne da ngay nekk jàmbaar te ki ko yar mooy mbay kumba suñu bàyyi mbay kumba ja moo ko yar bàyyu lamin te góor googu kenn ku nekk xam na jàmbaaram xam na itam njàngam loola moo feeñ fii tey ci moom te nii yàlla def ko ci mu def conférence bi ci njàmbaar kàrtu barkal la su doon liggéey itam noonu lay demee mbokk yi ngeen ma ñu tuuti àgg na ba pare su doon liggéey it noo lay demee fa tabaarakallaahu li Maodo Diop doon wax léegi ci Seydil Haaji malik Seydil Haaji malik dañ ci def ay woy muy baaru elmin kan su fadlin surru awliyaayi baru qalbin baru yaddin baru elmi diinilaahi naylu Malick naylu diini muhtadira sulullahi samsu fadlin seynu saabin rusdu malik minallahi huwa xati busamaani fi siril maaniyaati huwa kaasiful xulubi mutkilu fi sirallahi yowma yakunu naasu li rabbil alamina fiihi wa sama ma qaamuhu yuqaalu lah yaa fadlallahi waradayta waduduyta ahlan wa sahlan malik يمنى عثمان مرحبا أديت الوعد فضل الله اللهم ردي على مالك وآل سدور وسلام لدى الأقول والقلوب إن شاء الله yooyu woyu maa ko taalif woon ndar ci Seydi Malik kon mel na ni fa tabarakallah mbir mi dafa ala daawume su fekkoon di li ñu def man def synthèse dañuy tàmbalee fu mu tàmbalee ba fu mu yemee jël ko point par point di ko détaillé ba mu jeex waaye loolu moo tax ma ne bi xëjatu fi waaye li waaje waxoon Seydina Omar bu mu ko fekkee muy ndalaw ca taatu garab ga mu ne ko laqad hakamta wa adalta fannumta yaa umaru yow day umar maanu nga atte nga nelaw nga waaw yow umaru waaji woyee ko loolu moom umar ibnu xataab fa tabarakallahu lu mu fi développé ci xam-xam lu am solo la la te laal na fu nekk laal na ci science laal na ci géographie même laal na ci lu ñu tuddee algéologie li nga xam ne mooy xam-xamu suuf yëpp laal na ci kon fa tabarakallahu lu am solo la loo xam ne nii dama wax ni su fekkoon ni mooy ca teeru ba la ko développé daa si ay intellectuels yoo xam ne danañ ko laaj parce que li mu wax am na question yu bari yu nekk ci biir yoo xam ne bu ko détaillé woon ca la gën a bare waaye dafa xëjul waaye nag am na solo fa tabaarakallah bi ci des mooy kontaan nañ ci yéen trop maire gis nañu la sa taxawaay ci dëkk bi rafet na képp ku xewle daa ñëw daa participer te loolu mooy jifu kilifa fa tabaarakallaahu jërë ngeen jëf ci loolu et association bi ñooy kontaan di leen gërëm xam ne lii ngeen commencé nii bu yàgg di ko def ba léegi sii lu am solo la ndax itam famille dafa am solo ndax ci la xamee te e, nit ñi bu fekkoon ci ni du famille kenn du xam kenn wax na ko ci bay ay ay biir yoo xam naa xalaqnaakum min sakarin wa unsa wa jaalnaakum suubal wal la ndax lan li taarafu li taarafu baada taarafu inna karamakum ba ca fu muy jeexe maa ngi guddal mbokk yi dama wax ni Basiru daf ñu waxoon ne tey la anniversaire sëñ Babacar Si mu ne woon bu ñu jullee tisbaar nañ ñëw fee ci jumaa ja ñu def ko ay ñaan xam naa ne du mën a gudd ay ay dog la ñuy def rek ñu fa jógee ku nekk delluwaat sa place xam naa ni loolu rek mooy xew xew ñu ñaan yàlla fekkewaat déwén ndax daaw bu nu fi jógee ba fi nu tollu tey kenn ku nekk ndax xam na ñaat noyyi la fi noyyi kenn ku nekk noyyi na 254 millions 16 mille 800 noyyi bu nu fi jógee daaw ba léegi si kenn ku nekk ci nu noyyi na ko nu ñaan yàlla yàlla mayaatu nu loolu nu noyyiwaat ko ba dellu siwaat fi dara bañ ko xajamal benno yi bañ a kale ci kàttan yàlla ak mbaaxam yàlla mën na ko yéen ko def Allah taala wa ñi ngi nuyu mbooloom ñi fi teew ñépp kenn ku nekk ci nuyoo bu gën a kawe di leen ziar ci xew-xewu diine bi nga xamante ni ñi ngi ko amal ci dëkk bi ci ñetti fan yi ñu génn jàpp suba di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan yenn ko yàlla nangu di waxi tamit eh, di rafetlu nag bu baax a baax initiative bi di xe conférence bi nga xamante ni famille bi ñu ngi koy amal at bu nekk fii mu rafet lool mais am ci sax loo xam ni depuis daaw ba léegi dama koy wax ni am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën dëgg-dëgg ñun bokkal yàlla baaxe nañu yàlla suturaal nañu yàlla teral nañu ndax lépp loo xam li profil la walla expertise la boo xam ni bii waroon nañ ko wuti loolu yàlla dimbali na ci bokkal ba lépp am na fi daaw ma gis Ibrahima Dia ma xamoon ko rek ci benn cadre douanier ñëw def benn conférence mu mu mu def ci man lu bëri ci li may bëgg a wax rek nii yàlla baaxe nañu parce que buubaa ngi fi defu ko oustaz bari ñoo mu ngi fi ñeneen nag fi ñu jël benn cadre un retraité douanier ni ko defal conférence mu def ko ci anam bu leer naññ naññ naññ li ma ci enregistré woon daaw maa ngi ko yore léegi li mu fi mos enregistré naa ko loolu vraiment duñ koy rafetlu te di ñaan yàlla yokk ko di ñaan yàlla yàlla dolli sutura si ah, mbir yi nag def naa lépp baax liñ fi amal ci gàmm gi lépp baax problème bi ci nekk rek mooy xate-xate bi muy xate ba kenn du ko mën jooxe noo ko bëgg a jooxe loolu rek mooy problème bu gàmmu gi benn guddi doyoon nañu ñun ñëpp ñu bokk ko ñëpp mën ko teewe buñ ko defee ñetti guddi ak i conférence ak i kaameel ak yu baax yu bari yu ñu dajale dana bare lu ñu échape te nuñ ko contracté ci benn temps bu gàtt moo ñu ko xaj mais liñ fi def lépp ay la yoon lu baax a baax la xaw ma nag kañ la ñuy yegg ci man ko planifier ba benn bu nekk ñépp mën ko di ko fekkee ni mu waree ah yéen nag ñu ngi ñaan yàlla ci li eh, ñaan gi nga xamante ni moom la sëñ bii def yàlla di dimbali ñu xarañte boobu ak gis-gis boobu yàlla may ñu ko bu ñu planifier activité yépp ba nga xamante ni benn bu nekk eh, ku nekk danga ko mën a fekkee pour mën ci barkeelu li ñu ci barkeelu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla bu mu suñu mujj gàmm eh, yàlla may ñu fekkee ko déwante déwan gënal ñu ren jëreen jëf waaw ah, may wax nag ne olof yi dañuy wax ne jinax bu benn pël génn dañu naan benn ngi noonu mais beneen bu ñëw ci dañ naan geneen a ngoog ñu xam ne nag famille famille bi wala amical baabu sëy liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey keneen ku ñëw rek da ngay topp mais ñoom jiitu nañ ñëpp loolu moom lu ma wóor laay wax te du tey lu ñuy wax jëmmale ko 40 ans bokkul ak lu commencé si si si si si juróomi at wala fukki at. ñu xam ne rek ni ma ko waxee léegi rek jinax ju génn benn dañ naan jinax a ngoog mais beneen bu ñëw ci danaa jeneen a ngoog waaw xam ne nag ni ñu gën a jàppalante xam ne bokkal suñu dëkk la ñu fi lañu am fi lañu tiitaroo lu waaye am si loo def si dëkk li may wax toujours fexeel kenn ñëpp ñëpp jiitu la si loolu yaa xam garab goo indi la maa ngi koy wax toujours ne man yéene naa saa yoo ñëwati bokkal bu ma amee même fukk wala ñaar fukk garab dinaa ko indi def ko si dëkk bi donc ku nekk xam ne fii ñu moo suñu patrimoine li may wax mais patrimoine da ngay gëm ne sa patrimoine la nga jàpp ko ñu ñoo bokk mën a liggéey suñu dëkk mais keneen mënuñu ko liggéeyal ah oustaz min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin allahumma la allahumma ij'al tajamma'ana hadha tajammu'an marhuma واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا من معنا شقيا ولا مطردا ولا محروما اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا فاصلا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا في عصر الصلاح illaa antana ala qadaa'iha fi yusrin minka wa aafiya bi rahmatika ya arhama rahimin ya hayyu ya qayyum ya al-jalaali wal ikram allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliq wal khaatimi lima sabaq naasiri al-haqqi bil haqq wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim salaatan taftah lana biha abwaaba ar-ridaa war-rizq wat-taysiir wa tughliq biha 'annaa abwaaba ash-sharri wash-shaqaawati wat-ta'siir wa takuuna lana biha waliyyan wa